en Casamance parce que bu ñu xoolee ñun ci moment yi ñu toll suñu kii ndamoo ki gën a bakk fii Sénégal c'est Sadio Mané ñu tuddee ko Nacho donc wër na àdduna def na li mu war a def na drapeau Sénégal fu nekk. quelqu'un que ci topp lui, Jules François donc mon acte mindset état d'esprit Sénégal mais état d'esprit pour man euh, du côté ci j'ai pas voulu mentionner son nom parce que de sax quelqu'un ki état d'esprit bu mel nii Sadio Mané bañ a jël way bi moomal ko sa bopp dama bëgg képp koo xamante ni am nga mindset am nga gëm-gëm am nga gëm-gëm yow day ñëwoon ci àdduna pour seetaan parce que on est on est pas venu ici pour ñëw seetaan après ñu yàlla na yéex ñu faatu ñu bi fii boo fi ñëwee rek da nga war a participer alors maintenant ça reste ci yow ci sa mindset ci état d'esprit nga xam naka ngay participer. donc góorgóorlu participer la fay impôt participer la jaamu yàlla participer la mais liggéey gëm ni yow da nga war a participer ci may ñaan ngeen tàccul moom Sadio Mané bu baax a baax a baax a baax parce que il m'a beaucoup inspiré donc à travers Papis ma ànd ak moom mu def ci yóbbu ñu Casamance donc le morceau boo xoolee muy morceau bi ci gën a vidéo bu ci gën a bougé nekkul morceau boo xamante ni ñun dañ ko def sax bal dañ ko def parce que dañu bëgg waxtaan donc ñu dem ci beneen morceau bi nga xamante ni mooy def manak ça parle de mbëggeel def manak nag boo ko waxee ci dégg ah gars yi dañuy comprendre rek ah boobu day yóbbu nag def manak so bañ naa sax su ma ko waxee comme fi mu toll nii ñu jàpp ni leneen lay jur woyaar nag man maa bëgg ku am mindset man maa bëgg ku am état d'esprit bu ñu naxante yàlla Sadio fi mu nekk sérieux sérieux gëm sa bopp discipline c'est une moo ko mel Sadio Mané fi mu nekk sérieux discipline ah gëm mu doon et ma xamal la benn affaire xale bu am iman la Sadio boo ko xoolee rek xam am na iman am na ragal boo amee nag jeune mu nekk ci réewum nasaraan yi yàlla def ci moom iman mu gëm yàlla ragal ko loolu ah di def lu baax soo ko jàppale wala koy jàppale nañu way dëkkuma ku nekk mën a way Sadio Mané moo tax rek ma jël choix ci moom waaye ma dellu ginnaaw te toujours fa son programme parce que. kenn mënul naataal Casamance bu wóor la génne Sénégal